UNICEF nag ci ci ni ñuy xoolee ni ñuy xaymaa ndóol euh, li ñu amoon tàmmoon di gën di def mooy di xayma ndóol ci koom-koom ci am amu nit ki wala ñuy xayma ndóol ci nit ki ni mu gisee situation maanaam li ñuy wax pauvreté subjective ci kàllamay nasaraan euh, mais bii nag dañoo ñëw ñuy xool nan la ñuy mën a xaymaa euh, ndóol ci gune Euh, jàpp ko ci xëy na li mu ñàkk mooy li ñuy wax privation ñu xool ndax euh, ci mbirum santé am na ci lu mu ñàkk ci mbirum njàngam am na ci lu mu ñàkk euh, ci ci li muy li muy dundee maanaam alimentation ndax am na ci lu mu ñàkk ci mbirum protection de l'enfant ndax am na ci lu muy ñàkk ci dëkkuwaayam ndax am na ci lu muy lu muy ñàkk ñuy xool ba mu mot juróom-ñaari fànn yoo xam ne bu ci nekk dañuy xool xale yi naka la ñuy naka la ñuy dundee ñu jàpp ne na xëy na suñ demee ba benn xale am ci ci biir juróom-ñaari ñeent yoo xam ne manqué na ko ci technique bi niñ koy defee ci méthode bi ñu jàpp ne xëy na ah gune gii kat ku ñu war a gën a jàppale la donc euh, façon xayma bu mel nii day tax képp koo xam ne aussi da nga am intérêt euh, ci jàppale gune Eh, nga mën a am beneen levier bu dul comme ni ñu koy defee rek ci koom-koom wala nga wala ni ñu koy defee ci ci ci ci xalaatu famille bi eh, ñoom ni ñuy gisee seen i bopp. donc looloo taxoon tey UNICEF gunge ci ANSD ñu def ci gëstu bu am solo eh, boo xam ne nag ci ay données deux mille euh, deux mille dix huit la sukkandiku mais am nañ yeneen données yu bees yoo xam ne dégam xam nañ méthode bi dinañ ko gën a beesal. ba mën a jébbal ñëpp képp koo xam ne soxla nga ko euh, ngir ñoŋal dundinu gune te étude boo gis am na ay limites waaw mënuñu wax ne lu parfait la limites yi aussi dina ko mën a partager ba ku koy jëfandikoo aussi euh, nga xam ne lii lii lay jëriñ waaye am na limite bii nii